ne boroom xaatima dafa séddale caay-caay yi ñaari xaaj yu fés ak yu làqu mu bëgg a njëkk a wax nag yi nga xam ne ñoo fés mu ne la caay-caay yi fés de moom amul nattable ne caay-caay yu araam la te boo ko defee daldi gaaw tuub caay-caay yi fés de nee na moom lay njëkki waaye mu kàllaf mu ne war na leen di moytu te ni mu ko waxee woon léegi saa yu ko defee rek daal di gaaw tuub ko day njëkkee nag caay caay làmmiñ ndax làmmiñ dafa doy waar lool dafa tàmbalee ci jëw jëw nag li muy bon bon dafa yomb lool ndax saa yu waxee ci nit loo xam ne nekku fi waaye bu fi nekkoon du ko neex rek loolu jëw la te it lépp lu aju ci moom ba ci sax la mu sol mbaa kër ga mu dëkkee mbaa tool ba muy bayee moom daal lu aju ci moom rek boo ca waxee loo xam ne am na sax ca dëgg-dëgg waaye bu ko déggoon du ko neex loolu jëw la bu fekkee loolu amul boole ci nag danga ko wax rek waaye amut kon na ngaa boole jëw ko ak duural ko xadis ba nee na yaa aba hurayrata in ahbabta an talqa allaha walaka tanaau lxasan fi dunya wal axira fa kuffa lisaanaka xan xibati lmuslimin boo bëggee taseeg sa boroom sab der set wecc yàlla defal la taggu àdduna ak wu alaxira del téye saw làmmiñ moytu cee jëw jullit ñi ba tey addis ba nee na inna al ghibata ashaddu min talatina zanyatan fil islaam benn jëw moo gën a diis moo gën a rëy fanweeri njaaloo ci lislaam fanweeri njaaloo benn jëw moo ko gën a diis ba tey addis ba nee na man araada an yufarriqa xasanaatihi yaminan wa shimaalan falyaata binnaas ku bëgg a tasaare yu baax ya nga defoon di ko sax-saxee ci ndeyjoor ak càmmoñ ba doo desee dara dara dara deel jëw nit ñi kuy jëw nit ñi moom dañuy fab ay yiwam yépp rek faye ko ñam doon jëw dañuy wax ne jëw nag li koy ëpp waral mooy ñaaw njort boo xasee jort ci nit dara faaw nga gëstu ba xam li ci ëpp loola am naam amut yàlla rekk a mucc ci ayub bu xasee ñaaw njort rekk bu nemmi ko daal di gis lu mën a wax moo tax ñu bëgg nit bañ a mel ne weñ weñ day xool béréb yi nga xam ne moo ami góom ci yaram wa mu di ca dal waaye béréb ya wér te set rawante na béréb ya neex xet moom du ko jege du ko laal dañu bay nag nit def noonu di gis sikki nit ñi di ko wax te seen yu baax moom mu mel ne du ko gis du ko wax jëw nag du làmmiñ dong moo koy def bu joxoñee ci baaraamam bañ xam sikk samuy wax ni diwa ko tax di wax mbaa mu rega ju ci ay bëtam mbaa mu tàllal làmmiñam gannaaw bu waxee sikk sa bañ xam ni diwa ko tax di wax yooyu yépp jëw la bu dee doxee doxinu làgg gi sax di ca wane ne diw mooy doxe nii loolu lépp jëw la nee nañ yàlla daa wax yowoon yonante yàlla daa wut ne ko daawut baraana nga gis ko amee làmmiñ wu rafet a rafet mën a wax lool bañ di ko yéem day bu demee bay faat duma ko may mu tudd laa ilaha illallah muhammad rasulullah te dara waralu ko lu may bari la dugg ci mbiri nit ñi di ca wax lum ci warta wax bépp jataay bu ay jullit toog nag lay teggin mooy rek ñu bañ faa dégg ñu wax ci kenn dara luñ ci warta wax ñu bañ faa jëw kenn bañ faa ndokk kenn ci musiba mu ko yàlla teg ndax ndegam nee nañu ay jullit lañ seen jataay daa war a ràññiku ci dara bañ faa xew loo xam ne lu yàlla gërëmul la bu mu doon ci wax bu mu doon ci jëf bu bëggee tuub jëw nag te fekk na kam jëwoon moom dégg na lam ko wax ba noppi kon mën naa dem jégglu ko su fekkee ne nag déggu ko woon te bu nekku maa waxoon nangam ci yow loola dina ko diis ba nga xamee ne mën naa bu dee julli sax aw naqar tax du teewlooti kon bu mu ko wax ne ko maa la waxoon nangam nga wax ne ko rek jéggal ma tooñ naa la ba noppi nag moom ci boppam mu bari la jéggalu boromam mi ko aaye woon jëw te teewul mu def ko te nag baril tuyaaba ndax bu ëllëgee bu taseeg moom bis penc rek man koo fay mën naa amit yàlla baaxe ko fayal ko loolee mu ko tooñ ndax gis ga mu gis muy rëccoo ko tuub la mu ko waxan am na waa ju baax ju ne del moytoo wax diw moo gën a xam diw wala diw moo gën a baax diw ndax kookee nga ne moo yées ci wàllu xam-xam wala moo yées ci mbaax bu déggee loolee xëy na mu naqari ko moo tax am na ku ñuy wax fadlu diin buñ ko mësaa laaj mbirum kenn ci boroom xam-xam yi day wax laaj leen keneen ndax man kat damay jàpp ne nit ñëpp dañoo mat sëkk ñëpp dañoo baax bu dee fi man ñëpp am maqaama yàlla nag moo xam maqaamab ku ne duma jéem a ràññeel maqaamab kee ak kee ba tey ñu bañ a fàtte ne déglu jëw kat mook jëw rekk ñoo yemoo jëw ni mu araame ci wax noonu la araame ci déglu kay déglu moo koy jëw ñoo bokk bàkkaar ba bu fekkee ku dégg nag jëw ba waaye dégg ga neexu la te soo mënoon tàggoog moom tàggoog moom kon deesu la ca bindal bàkkaar képp koo xam ne daal mi ngi jëw fi sa wet te nga mën koo tere danga ko daal di war a tere su fekkee ragaloo ko su fekkee nag ñemewoo ko ko tere nag mu naqari la bu wër ci sa xol da nga daal di jóg ci jataay ba ndegam mën ngaa jóg ngeen bokkee nekk ci lu mel ne oto mbaa beneen warukaay te mën laa wàcc dem nag bu la naqari ci sa xol rek yàlla xam ne naqari na la mu doy li ma ta moytu nag mooy di ko aaye jëw ci saw làmmiñ te fekk na ci sa xol moom la muy wax dalaa neex loolu moom ak naa fekk la boole ja kon day boole am bakkaarub jëw ak naafiq bu dee tere kenn jëw na ko ko tere rek ngir yàlla waaye bu mu ko tere jëw ci kaw bëgg ñu jàpp ni moom daal ku sàmm sàmm la ba mi ngi aaye jëw sax kon moom xalaatu koo def na am yéene ju sell rek ci aaye ko jëw ba ku mu jëw nag te nga xam ne dégg na lam wax ca moom ba noppi kon daa war a dem jéggulu ko loolee mu ko wax ba mu dégg ko bu fekkee jëw na ko nag waaye moom koo kee ñu jëw déggut lañu wax ca moom te bu ko waxaatee ne ko maa wax ci yow nangam jéggal ma ko loola day gis ci moom lool ba xëy na sax bu dee julli naqar wa tee koo teewlu kon bu mu jaar ci wax ko lam ko waxoon na koy wax ne ko rek jéggal ma yem foofu ba noppi itam nag bari la tuub digganteem ak boroomam ndax yàlla moo njëkk ay jëw ba noppi itam di baril lu baax ndax bu ko yàlla fayalut loolee mu jëw mbokkum julitam moom mu am yiwum ko mën a faye bu ëllëgee ca pencum yàlla ma mu teg ci rambaaj rambaaj mooy nettali ay wax keneen ndax bëgg a yàq mën na am itam ci bind su bindee jot li keneen ndax bëgg a yàq mbaa sax junj junj rek buñ ci xamee lam jublu tam jublu ci yàq day mel ne dafa nett li ci làmmiñam ngir jubloo yàq moom nag daa bokk ci bàkkaar yi gën a rëy ndax moom nee nañu lim mën a yàq sax moom rambaaj jëw mënu ko yàq ndax jëw moom bu ko kooku déggut moom ma jëw rek moo cay gàddu bàkkaar rambaaj nag moom day yàq diggante nit ñi ba mujj dañuy dunde ci kaw suuf naqari ci ñoom lool lu suuf si yaatu yaatu mën naa mujj xat ci ñoom lool ndax yàquk rambaajkat boobee ba addis ba nee na inna namimata wal hiqda laa yajtamihaani fi qalbi mu'min rambaaj ak coxor duñu bokk tase ci xolub aji gëm yàlla rambaaj sax mën naa yóbbee doomi aadama yi bekkoor bu réew réy ndax ci jamonoy banu israil dañoo bekkooroon bekkoor bu méttee metti Muusa mi seen yonante daal di baaw ñaan yàlla ndox waaye yàlla mayu leen taw su boroom ne Muusa dafa am rambaajkat boo xam ne mi ngi ci seen biir te li fee mi ngi ci duma leen may ab taw Muusa ne ko wax ma kum doon ma génne ko sun boroom ne ko su ma la waxee kum doon ma itam kon rambaaj naa kon nag yéen ñëpp maase leen ci tuub rek Muusa daldi wax banu Israël ñoom ñëpp ñu maase ci tuub lépp luy xeetu rambaaj naka ñu maase ci tuub xeetu rambaaj rek yàlla may leen taw nee nañu bu la kenn nettalee di rambaaj bëgg yàq loolee muy wax bul ko nettaliwaat keneen ndax yow itam boo ko nettaliwaatee kon rambaaj nga na mu rambaaje moom itam bu la kenn nettalee loo xam ne xam nga ne lu aay la am na juróom yoo xam ne war ngaa sàmmoonteeg ñoom ba ci njëkk mooy bul gëm lam la wax ndax suñ boroom ne in jaakum faasiqum bi naba'in fatabayyanu ñaareel ba nang ko ko aaye ndax aaye lu bon moom dañ ko waral ci képp ku ca mën dara ñetteel bi mooy nang ko bañ ngir yàlla ndax yàlla ci boppam dafa bañ ab rambaajkat ñeenteel ba mooy bul jéem a gëstu ba xam loolee mu wax am naam amut ndax suñ boroom ne wala tajassasu kam wax ne ci moom la jële wax ja mel ni moom la la bëgg a rambaajeel na nga ko moytoo yedd moom kooka mbaa nga di ko wax dara lu bokk ci loolu ndax day mel ni kon yow ci sa bopp rambaaj nga mu jàll ci fen moom it daa bokk ci bakkaar yu mag yi bàyyi ko ci làmmiñ fen nag mooy wax lu bokkut ak la am te tey ko boole ci su waxee lu bokkut ak la am ngir njuumte rek moom kenn du ko ca bindal bàkkaar moom nag ab julit war na koo moytu ndax safwaan nee na dañoo mas ne yonante bi ayakoonu almuminu jabaanan xaala naam ñu ne ko ayakoonu baxiilan xaala naam ayakoonu kazaban xaala laa dañ ne yonante bi ku gëm yàlla ndax dana doon ab ragal mu ne waaw ñu ne ko ndax dana doon ab nay mu ne waaw ñu ne ko ndax dana nekk ab fenkat mu ne déedéet nett li lu amut it dañ koy jàppe rek ne aw fen la kon nit ki balaa nett li dara na nekk lu ko wóor mbaa mu jële ko ci ko wóor ne moom lu mu wax rek lu wér la waaye bu dee sikki sàkk rek daal di nett li dañ koy jàppe aw fen ba tey itam dañuy aaye ñu woo ko ci aw ñam xam ne yéene nañ ko ko mu daal di wax ne suur naa te fekk na suurut mbaa dama dul lekk ñam sàngam te fekk moom dana ko di lekk suur naa jëm wax te suurut ak ñam sàngam duma ko lekk te fekk dana ko lekk aw fen la nee nañ yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na jigéen ju waxan lu demee noonu mu ne ko bul boole xiif ak fen maanaam fen nag li muy bon bon dana dem ba nekk lu war du mën a ñàkk ab julit bu naree tuur deretam mbaa ñu nar a nangu alalam soo mënee wax loo xam ne amut xettali ko wax ga lu amut ngir xettali ko lu war lay doon soo ca waatee ci yàlla rek yem ci boolewoo ca luy aju ci leneen looy warlu xanaa da nga waat ci yàlla rek kafaara du la ca war tuyaaba rek nga cay am bokk na ci bàkkaari làmmiñ ngiñ ci yàlla loo xam ne da koy sikki sàkk rek mbaa wóor na ko li sax du dëgg mu daal di koy waat loolu bàkkaar bu réeré la la gën a aay nag mooy waat ngir fab alali jullit bëgg nangu alali jaambur ci yoon ba tax nga waat loo xam ne amut loolu ku ko def addis ba nee na buy taseeg boromam day fekk boromam di ko xaaroo mer kon ab julit bu ko alali àdduna jaral dem ci yoon di waatoo te fekk mu wóor ko ne li muy waatoo kat dara amu ci bëgg alali àdduna rek moo ko ci yóbbu nay moytu itam par parloo mooy sot kenn moo xam ci wax la moo xam ci jëf la moom daal fa dëgg féete nay féete foofu rek waaye ba mu sot kenn ci wax seere neen mooy seere loo xam ne wóoru ko doonte sax far na tombeeg la am waaye ba mu koy seere moom ñeme yàlla rek taxoon mu koy seere waaye wóoru ko mooy seere neen moom nag addis ba da ko diisal lool lool ndax dane ndax duma leen xibaar bakkaar yu mag yi ba ca gën a mage yett yoon la baamu wax loolu ñu ne ko akay yow yonente bi yàlla bi qaala al ishraaku billahi wa xuquuqul walidayni wa kaana muttaki'an fa qaama fa qaala ala wa qawlu zóori aw shahaadatu zóori fa ma zaala yukarriruha xataa qulna laytahu sakat dane mooy boole yàlla ak dara teg ca ñàkk a topp ñaari waajur daa fekkan mu sóonu nag mu dal jóg daldi ne ak wax neen mbaa seere neen xëy na ki doon nettali moo sikki sàkk ba xam yonante bi dane xawlu zóori wala dane shahaadatu zóori waaye bi mu nee alaa wa xawlu zóori wala alaa wa shahaadatu zóori moom da ko doon wax ak waxaat di ko ko wax ak waxaat ba mujj lu ne ak a neexoon mu noppi ak a neexoon mu noppi maanaam seere neen gi moo réeréy ba bi mu ko waxee da ko doon baamoo ko baamuwaat ba mujj ñoom ña fa nekkoon kenn ku ne di wax ne ak neexoon mu noppi ak neexoon mu noppi ji xëy na ci seenum xel lañ ko waxee waaye waxe wuñ ko ci seen làmmiñ lim ci teg aw ñaawteef wax lu ñaaw sun borom da ko bañ lool hadis ba neena inna allaha yakrahu alfahishal badi yàlla bëggut ku ñaaw làmmiñ ku ñaaw làmmiñ nag mooy koo xam ne baat yi nga xam ne daa mat a tegginal nekki lu jëm ci dem wanag ak la cay am ak jotek góoru jigéen xeeti baat yooyu bu ko waxee ni nga xam ne rek moom la ko làng wa daan waxe naka jekk te bañ koo tegginal loolu ñaaw làmmiñ la rawante na ci teewaayu gaa yu baax yi wala ci teewaayu koo xam ne moom da ko war a ormaal niki baayam mbaa yaayam mbaa ay mbokkam ya ko mag loolu ñàkk teggin lool la te addis ba nee na law kaana alxayaau rajulan la kaana rajulan saalihan walaw kaana alfuhshu rajulan kaana rajula suu'in mu ne bu fekkoon ne kersa day jëmmi nit nga xam ne kon waaju baax lay doon waaye nag ñaaw làmmiñ moom bu doon jëmmi nit nga xam ne kon waaju bon lay doon waaye nag bu dee ki ñu waxal xelam daa gàtt ba nga xamee ne faaw rek ñu wax ci digg ba xappati mu door a xam buñ ko deful du xam kon mënees naa xappati ci digg ba wax loola ak la muy naqare naqare dégg lépp loo xam ne des ko ca bindal tuyaaba rek na koy moytoo wax ci làmmiñam ndax nee nañu am na ku deexoon ci jihaar yaayam mel na koy wax ak moom naa ko dëgg la bég àjjana nga jëm ndax ànd nga yonente bi jihaad ba ñu rey la ci yoonu yàlla yonent bi ne ko lu la xamal ne ci waa àjjana la bokk xëy na boo demee daana wax loo xam ne amul ko lenn njariñ di nay ci loo xam ne mënoon na caa bañ a nay nga xam ne kon wax loo xam ne sa yoon nekku ca mbaa wax loo xam ne amal la njariñ doonte sax bàkkaar néewu ca rekk lor la te mat naa moyu boo naree wax rek lu la amul njëriñ na nga ko bàyyi te tudd yàlla ndax wax ju amul njëriñ moom doonti sax agul ci araam agul ci sib day wawal xol di xañe wërsëg am na sax ñu ko araamal ndax li suñu boroom ne fama za ba'd al haqq illa dalal bi suñu boroom ne gannaaw dëgg réer rek a fa nekk cànkute rek a fa nekk am nañu sukkandikoo ci wax jooju ba jàpp ne wax lu amul njariñ lu araam la làmmiñ dafa gën a doy waar rek ci mboolem cër yi moo tax mu ne nay moytoo wax ci làmmiñam lu ko amalu njariñ waaye lépp loo xam ne rek amalu ko njariñ moo xam lekk la moo xam naan la moo xam sol la mbaa leneen rek lu ko amalu njariñ rek na koy moytu min xusni islaamil mar'i tarkuhu ma la yaaniih